jërë ngeen jëf njiital réew mi bëgg a jiite réew mi di Idrissa Seck ci atan koy bëgg a jiitu moom daamal Kajoor l'Observateur mi ngi ñuy wax ni mi ngi ci dansé ni démb bi commission contrôle parrainage bi ubbee ab dossier doon càmbar ay parrain yi Idrissa Seck baaxlewul am na lu ëpp juróom-ñetti junniy doublon externe yu mu war a bu bëggee jàll ci parrainage yi Momar Diong di journaliste buy gëstu ak xeltu ci politique réew mi xamal waa l'Observateur ni analyser naa ci mbir yi Momar Jong nee nañu mooy bu ñu demee ba Déthié Fall mi ne woon ab poulain moom Idrissa Seck jàll ci parrainage yi Idrissa Seck di tendeefal loolee mbir la mbir moomee l'observateur xëyee mu di Idi mi nekk ci guut le quotidien moom la xëyee moom it ba dañuy wax ne du moom rek ndax candidat bu pur bi di Mamadou Aliou Dia moom it war naa lijjanti 202 ngir mën a matal li ñu koy laaj ñi matlewul ba ñu rëkkale leen journal bi nee kanamu commission contrôle parrainage bi ndax commission bi da ko ne mu dem régler ji doublon externe yi mu am journal lay fa nañu ay mbetteel ak i laj maanaam i surprise ak i échec ñoo am ci commission contrôle de parrainage ba ca conseil constitutionnel journal bi nañu bankal sa baaraam Mbacke Sarr madlewul Alioune Sarr madlewul Ziz Amidou Dem madlewul Jean Baptiste Diouf madlewul Khadim Diop madlewul Birima Mangara madlewul Ndiak Laax madlewul Cheikh Abdou ndax moom bi ñu ko wàññilee ay parrainage am ko ko liñ ko ci tegal mooy good fine vox populi nañu la xew ci parrainage yi du jàmm jamono ji ndax ci ñaar fukki dossier de parrainage yi conseil constitutionnel càmbar démb ñaari candidat kott ñoo jàll ci parrainage yi teema ñu ne ko moo taxit candidat yu bari yi yëgle woon ne dañu bëgg bokk ci élection présidentielle yi ñeent fukki ci ñoom ak lu teg nee nañu leen nañ dox foofu yi 40 ak lu teg i jàmbaar ci la bokk ñoom ñaari rebelle yi fipp woon meroon ngemb beroon seen langue bopp sampoon seenum dënd seeni parrainage tey la koy contrôler ci commission ba sàngin gi neew ak sa lingeer sur soi nee nañu ñaan lu ñu mën ngir bukki bi mat Amina Sasom Diatta bañ leen a mat ndax moom it soxna si ba ñu contrôler ay parrainage am matlewul enquête nañu ci candidat yi am na ci ñu yagar-yagari dem déposer seeni dossier ca conseil constitutionnel te caution Actu muy Aminata Touré professeur Amsatou Sow Sidibé Aïda Mbodj Rose Wardini Anta Babacar Ngom ak Aminata Assome Diatta mi ñu rëkkale yéenekaay bi dañuy wax ne bu ñu deful ndànk candidat bu jigéen du am ci présidentielle 2024 mi ngi ñuy leeralal fi mu jógi ba tax mu wax ko ñu wax ci la sinekaay mi ñu xëy wax lu neex li président Macky Sall defal maire yi ci Sénégal journal bi nañu maire bu Malicounda di Maguette Sène coordonnateur bu Radel xalaat mu amoon yàgg koo mu taxaw fa mu mag waa Radel di ko sàkku président Macky Sall defal na leen ko mu di lu jëmale kanam nekkinu élu locaux yi indemnité des maires am nañu seen statut bopp am nañu ay véhicule de fonction ak i titre de voyage coordonnateur u Radel di Maguette Sène ci xët mu njëkk journal Life mu li ñu doon sàkku doon ko mi ngi ñëw ndànk-ndànk ma nga fay waxit ne kuréel gi di réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local mi ngi na si pexe di teg ay initiative ngir fexe ba indi ci réew mi ay investisseurs yu bari ñu bari dégg nañu lu doy waar li xew ci Nimza dëgg ci Pikine Est mu di benn femme bu ñu fekkoon mu faatu cib néegam te ñu ne bañ koy fekk mu faatu sol woon ay yére waa ji mu nekkaloon aw faram la woon ñecc des ne ab colocataire am la l'observateur nee nañu moom waa ji ma nga ca loxo yoon waaye ba léegi nanguta ubbi gémmiñam wax li ñu xam daal mooy bi yëf yi amee dafa bañoon ne du ubbi néeg bi ba ñu forcé ubbi néeg bi ca lañ ko fekk moom waa ji ab caleçon ak tiset bu xotteeku léegi ko nañu xale bu jigéen boobee ñu fekkoon mu faatu ci néegam te ba ñu koy fekk mu faatu soloon ay yére ak ni ñu ko fekkee mu faatu liñ ci xamagu moo tax ñu jàpp ne ki ko a